Euh, maa ngi koy wax léegi. des candidats ba léegi ah. waaw ba léegi waaw <laughs> des candidatures sont déclarées mais li ma wax rek doyen léegi mooy xamaguñu kan mooy bokk kenn wóorul ne di nga bokk en deux mille vingt quatre compte tenu de ce qui s'est passé euh, ci euh, élection yu mujj surtout présidentielle yu ñu génn alors Khalifa Ababacar Sall moom déclaré wu na ne candidat la à l' élection présidentielle donte sax xam nañu ne ñu ngi doon wax dossier amnistie mook mook Karim est ce que bu ñu tollee fii ñuy dem ci échéance bu mel ni kenn warul na nga bokk. ci boobu élection tension politique bi du gën a yokk ci démocratie bu mel ni Sénégal. xam nga dañoo boo xoolee Sénégal nga jàng ko démb ak tey ak fu mu jaar ci wàllu démocratie waruñu nekk en deux mille vingt di waxtaane yenn sujet waroon nañ ko weesu bu yàgg. doyen Pathé wax na ko même bu tey officiellement ñu nekkoon candidat yàlla rek a xam gis nañu ci réew mi ñu jege. ku nekkoon candidat à l' élection présidentielle élection yu accès wul mu fàttu yàlla rek a xam. wallaay donc bu ñuy wax activité politique lu jaadu la lu yoon nangu la toute organisation ou parti politique a le droit de mener des activités politiques la campagne électorale loi moo ko organisée c' est une période. et kii def campagne électorale mooy le candidat mhm. accepté bien donc fi ñu toll ci activité politique la ñu nekk donc ku nekk mën nga ko tudde neneen li tax ma ni man Khalifa Sall yéene bi ma am muy ñun suñu candidat ci sart yu leer laa ko teg mm. d'abord ci yoon ci yoonal gisuma lu ko mën a xañ naan ñi ngi naan am na lu lu lu lu tegu ci ndoddum mm-hmm. mais ki may wax ni na fonk kàddoom moom ci boppam moo wax ci jëmmi boppam ba misaal ñaari mandat yi sax ak ñaari rakka absolument ma jàpp ni bu dul bu dul nayimit mooy iliman mm. mais iliman diine dafa ni bu juumee nañ ko wax subhanallah absolument <laughs> te bëgguma askanu Sénégal àgg ak moom foofu naan ko subhanallah mm-hmm. yéene naa ko jàmm <laughs> ndaw la te réewu Sénégal maa ngi lay wax démb ak tey mm-hmm. moo tax ñun dañu wuute ak doxalin ñu bari. Senghor fi ne woon président de la république. def na lu mu mën def dem. Abdou Diouf ñëw remplacer ko def lu mu mën a def dem. Abdoulaye Wade ñëw def lu mu mën a def ak yeneen dem Macky Sall ñëw mu yéex mu gaaw day dem. moo tax ñun du ñu craché ci loolu. moo tax bu ñuy wax ay alternance yooyu ñun du nekkuñu ci alternance. dañu nekk ci rupture. dañuy sukkandiku ci li ñu fi def lu baax ñu fesal ko wéyal ko li nga xam ne dafa dëng nu jubbanti ko teg ko ci yoon mm-hmm. ñépp xam nañu réew mi fu mu toll ku ko wax ku ko waxul fi di xel yi dalul mm-hmm. ci impasse la nekk mm. kenn xamul luy am suba kii war na bëree warut a bëree amul licence am na lissance mm. coow laa ngi foofu absolument kii nekk na li li déclaré ci candidat kenn xamul nu mu toll. bari nañu lool mais ci càppandaw càppandaw gi kan moo ci nekk candidat. Mm, c'est la grande question. kan le conseil constitutionnel di jox. cutus pour nga nekk candidat. yàlla rek a xam. Mm. mais ñun comme que am na nañu yéene bu rafet. te dañuy sukkandiku ci dëgg. parce que loolu ñu wax de dafa dafa dafa nekk ci ndodom mm-hmm. ki nga xam ni moo jiite réew mi moo wax ñëpp dégg aussi. joxe ay sa tegtal ne na ngeen ma xaatima loo xam ni dinaa ci sukkandiku pour ñu delloo suwaat leen ñu mën a nekk ci élection tout à fait léegi nag mi ngi ci ci ci moom moom mooy xool ban ba dogal la jëm mm. et jàpp nañu loolu moom waxoon dana ko jëfee. très bien nga jàngatee ñi ngeen ñu wax ne euh, président de la république impasse bi mu nekk dafa bëgg a amnistier Karim ak xalifa euh, Ababacar Sall pour nag mu mën a faire face à d'autres candidats potentiels euh, présidentiables yu mel ni Ousmane Sonko est-ce que wax boobu yéen a koy dégg ak jàngat bi ngeen ci mën a am si on sait que justement Ousmane Sonko ak Khalifa réeréewuñu. mosuñu réeroo Ousmane Sonko maa ngi koy nuyu au passage. Mm-hmm. leader Yewwi Askan Wi nekk aussi sama président organisation des maires des élus réels donc ma am yéene bu mag ci moom mu nekk ndaw bu am yéene ci réew yal na yàlla mottali yéene maintenant man scientifique la socialiste la donc du ma wax ci ay mots de rue contexte politique bu taxaw laay mën a analyser naa li mais lu ñu wax ci mbedd mi bari et que charte yeew yi may na leen sax yéen ngeen ku ci nekk dem doon candidat mais yeew loolu la waxoon mhm. nañu ànd ci élection locale yi mhm. ànd ci élection député yi mhm. bu élection présidentielle jotee la Abdou Diouf waxoon nañ ko defee jàkki jàngoo ku mën a nodd nu nodd bu ñu noddee ba noppi nag candidat yeew yi bi nga xam ni mooy dem deuxième tour te ëpp poñ ñëpp jàppale ko ñu dérouler le programme yeew parce que dama jàpp ni ñun après bu Khalifa Sall nekkee président la République incha allah yàlla na ko yàlla def. mais mënul à lui seul déterminer yan jéego la ñuy def pour indiwaat jàmm ci réew mi pour soxliwaat réew mi pour dimbali nappkat bi baykat bi sàmmkat bi mu mën di liggéey di dund ñaxam mais faw mu sukkandiku ci nawleem yi mu ànduloon ci nekk yeewi askan dana ci lawaale sax waa PDS yi nga xam ni mhm. ñoom la ñu àndaloon ci élection député yi. Mhm. laawaale ci askan yu Sénégal bi nekk ci biir réew mi ak bi nekk ci diaspora bi yéene bi ñu am nan lañ koy tëxëñee. Mhm. pour jëfe ko. ngir sénégalais bu nekk mën ci gis sa bopp. très bien alors Moustapha ni ko ni ko monsieur le maire waxee est-ce que jotul euh, ñu defee ko noonu rek mooy jàkk jaa ngi noonu euh, ku mu ku mu neex na nodd bàyyi candidat yi nga xam ne bëgg nañu dem ci boobu la élection euh, ñu dem ca su ma nee bàyyi na xëy na conseil constitutionnel moom mooy moom mooy décider waaye ci politique la ñu nekk gisoon nañu encore une li xew en 2019 alors rax ci dolli ñu ngi wax am na si Karim ak xalifa euh, mu nar a doon beneen reconfiguration politique bu ñu nar a gis fii ak 2024 est-ce que loolu seen euh, opposant bi nga xam ne moo leen gën a sonal taxul ngeen di def euh, maanaam jeu politique yooyu muy Ousmane Sonko. damay ñëw ci loolu rek ci candidature bi yaakaar naa su ma si ñëwaat ci beneen yoon si déglu ci li monsieur le maire di wax xam nga actuellement bu ñu ciblé. suñu candidat rek ne candidat bi valableul baaxul warul dem te duñu wax yeneen candidat xam nga am na candidat yoo xam ne ñu ngi fi am na loo xam ne tegu na seen kaw ñu ne ñoom waruñu dem dañ leen a war a amnistier pour ñu mën a dem kenn waxul si ñoom am na fi ñoo xam ne ñu ngi am problème ak justice xamuñu fañ la mujjee seen problème ndax danañ dem wala duñ dem mais léegi bu ñu ñu ngi ci procédure waaw mais mais mais mais bàyyil ma bàyyil ma développé rek dinaa egg si yooyu yëpp bu ñu dégloontee rek mu neex ndax man damay déglu may wax tamit damay bëgg ñu déglu ma uh-huh. xam nga euh, tey jii kandidaa boobu su dee ne moom lañ ciblé ne warul dem dama dama yaakaar ne bu ñu incité nit ñi pour ñu jóg pour taal dëkk bi wala xeex wala nangam dañoo nekk ci dëkk boo xam ne Cheikh ñun ñëpp dañoo war a yoon tey yow am nga droit sa gis-gis ni nga gisee man wax naa la sànq ni ma gisee man ak yow bokkuñu gis-gis. comme bokkuñu gis-gis te dafa am lu fi nekk loo xam ne moo war a àtte nañu bàyyi bu yoon àtte ñun ñëpp ñu respecté li yoon wax. loolu mooy mooy tax dëkk bi mën a dem ci kanam. mais bu ñu ne déedéet lii moo war a am nit ñu jóg leen kaay leen ñu xeex pour lii mu am. non c'est pas comme ça man gisewu ma noonu loolu nekkul loo xam ne luy defar te képp ku bëgg ñëw nag jiite réew aussi da fekk li ngay jiite nga fekk fa lu baax. xam nga ñëw taal réew ba réew mi tàkk nga doog koo jot yàqati réew mi yëpp doog koo jot ba ko liggéey mm-hmm. kooku daf ñuy retard loolu daf ñuy delloo ci ginnaaw beneen bi may wax rek tuuti ma ñëw pour revenir à monsieur Thiaw li mu wax sànq ba wax ci mais li ñu waxoon defuñu si dara dëkk baa ngi nii jeunes yi mm-hmm. liggéey ñu ndox amul courant amul mm-hmm. mais monsieur Thiaw lépp mënul yem ñëw rek defandoo lépp lépp pare ñu ne lépp c'est impact mënul nekk mais mais nag aussi y a des y a des avancées significatives. Hmm. tey fee président dem rek pour ñëw ci ndox mi mais KMS 3 bi mi ngi foofu Kër Mamar Sarr travaux yi foo tourné ci dëkk bi yaa ngi koy gis. Hmm. loolu yokkute la bu rëy ci ndox mi tey boo demee ci àll bi PUDC bi programme PUDC boobu boo demee ci àll bi tey. Hmm. mais ñun dañuy dox man fu nekk laay dem man suy jolof jolof jolof laa dëkk au fin fond de kii mais da ngay gis changement yi di nga gis. ruuti di nga gis tey foo xam ne amul woon ndox tey mi ngi am ndox nga gis foo xam ne amul woon courant tey courant ba egg na fi mi ngi am courant mhm. tey loolu ay avancé la mais pour fépp amandoo courant fépp amandoo ndox tey Thiès bi mu dem Euh, boo xoolee centrale boobu ñu def. Hmm. fële ca Malicounda yaa ngi bilan euh, damay wax li mu def xam nga def ne deful dara. loo bilan mënoon nañu ko bañ. xam nga liy yàq waxtaan mooy. xam nga yéen seen waxtaan xam nga lan ko yàq waa déglu ma tuuti. waaw may déglu deful ma bilan damay tontu. xam nga dafa wax ne deful. waaw mais il faut ma expliquer ko. xam nga yéen yéen problème am na loo def. xam nga le problème qui se pose. mooy xam nga yéen da ngeen dul nangu boo leen ñu invité ci plateau. parce que nous sommes au pouvoir doo nangu bàyyi ñu wax. xam nga suñuy wax di wax li président def da ngeen koy da ngeen nangu toog déglu ko. Mhm. di wax on n'attend pas moins quand même parce que dañuy moom daf ko wax dama koy tontu. dama koy tontu nag aussi dafa laaj. déglu ko même ci emploi jeunes yi muy wax. Mhm. mais emploi des jeunes li ci président def mais kenn mësu ko Mm-hmm. te aussi programme yi ngay wax yépp mais ñan ñoo koy liggéey mais ay nit ñoo koy liggéey Promoville bi tey Cheikh maire la. am na mm-hmm. ci dara Promoville bi tey ñaata jeune la formé tey te si gox-goxaan yi tey ñaata route pavé la fa Promoville nekk di def. ñaata éclairage publique tey solaire ngay dem ci commune yi fekk fa tey Promoville def ko foofu. ba ci euh, projet bi tey nga xool tey canalisation yi defar ñaata jeune ñoo ci liggéey. mais route pavé yi ñu ciy def mu ànd ak projet bi ak éclairage public solaire bi projet bi àndal mais loolu yëpp dafa nekk loo xam ne tey lu ñuy làmb ak lu ñuy xool di ko gis la même projet bi ñu créé bërki Dembo Ndiaye mais mair yi gis nañ léegi tali yi gis nga nu muy setee mhm. chaque jour yaa ngi gis équipe yi fa nekk di ko bale di ko toppatoo di ko defar mhm. loolu yëpp emploi des jeunes la nga ñëwaat ci xëyu ndaw yi la même chose donc président mi ngi def ay effort absolument effort yooyu nag il faut ñu reconnaître que même keneen bu ñëwee tamit aussi gis nga liggéey ba àdduna bi di tukki liggéey du jeex ku falu da ngay def ba fu nga yem keneen ñëw continuer nañu nañu nañu nangu loolu. mais bu ñu toogee ne ñu revenir sur les candidatures. mais sur les candidatures li ñu wax mënuñu neex bopp dëkk bi xam nga dëkk yoon lañ nekk boo xam ne lépp dañ ko teg ci yoon lu ñu ne ñu réglementé ko ne nii lay demee nii lay demee nii lay demee. Mhm. mënuñu bàyyi rek pëccëxoo di am kon ça veut dire que dëkk bi kon dëkk lan lay doon. Mhm. kon dëkk bu amul yoon la nekk dëkk bi dafa am yoon. kenn ku nekk nag charte yi yoon wax. ne képp koo xam ne nekk nga ci charte yooyu pour nekk candidat mais kooku kenn du la téye da ngay nekk candidat mais boo ci nekkul tamit dañ ngay téye pour doo doo doo bu la yoon tere ne la waroo nekk candidat waroo nekk candidat mais loolu jarul jarul xeex jarul xulu est-ce que du risque ci président de la République mu mu posé waat candidature am euh, ci 2024 ci bu ñu xamee ne ñenn ñu ngi wax ne sondage génn na wala moom sax boppam ci boppam defal na boppam sondage mais sondage yu nga xam te ni favorable ñu ko kan mais risque risque si lépp loo si àdduna dafa am risque lu amul risque fii émission bi ñu toog di def sax am na risque mhm. risque am na fépp président ñun bu nekkee suñu candidat mais day dem élection comme ni mu war a demee élection mhm. mais aussi lu ci yàlla def ñu xam ne <laughs> lii la ci yàlla def <laughs> loolu rek la mais mënoo yow toog tey bëgg a xam ah. li nga xam ne mooy xew suba ah, dañuy analyser rek waaw mën nañu def nag ay analyse yow ni ngay analyser xëy na man ah. du bokk ak man nu may analyser d'accord waaw analyse yi moom mënul mënul yem yow sa analyse mën nga gis ne président peut bu demee yow gis nga ci leneen man man sama analyse. parce qu'on a vécu en 2012 gis nañ fi président bu président moom mos a gagné amul benn élection bu fi ah. jàll gu wax ne président perte na ko. d'accord yi bokkuñu tey boo jëlee élection locale na nga ko mën hmm. na may analyser élection locale ak na may analyser élection législative ak présidentielle c'est pas la même chose. c'est pas la même chose mais baromètre ah. yi ci local beeg législative. non baromètre yooyu baromètre ko jël parce que bokkul tey baromètre local yi boo ko jëlee. yi bokkul mais xam nañu on est dañoo xeex suñu biir tojante ay bopp perte. ñu gagné leen waaw xam nañ ko. <laughs> ba ci législative yi aussi sur les investitures. Mhm. xeex yi am na on a perdu. mais bu dee élection présidentielle. Mhm. maanaam yow ak kii même bu dee ñoo nekk ay tendance ci biir APR ñun ñëpp ñoo bokk benn sac bu ñuy sotti de. bien sûr lu ñàkk a. lu lu am solo c'est pas la même chose. alors monsieur Thiaw sur les candidatures d'ailleurs yow bëgg nañu xam euh, kan mooy seen candidat mais sur les candidatures souvent Sénégal da ciy am problème. Mhm. Euh, ci ñenn ñi bu ñu waree dem. Euh, samp seenub ndëdd jafe-jafe yi wax nañ ko fi léegi ñii ci wàllu yoon ñii xamuñu ndax dinañ bokkam de ci démocratie bu mel ni Sénégal nga xam dañu